yëpp ay coow la woon rek xam nga yëpp man euh, dama leeroon ne lu mën def kii day dem comprendre nga <laughs> bâtiment baal ma wax du ma wax bâtiment jël sama bopp bi dem métti na nag mais man xamoon naa ne bâtiment kii di génn ci affaire bi parce que. Euh, est seen projet réussir wuñ ko mooy fexoon ba du nekk candidat. waaye nee naa li ñu réussir euh, en Afrique. kenn su ko réussir prendre le pouvoir démocratiquement. en tant que je veux dire que président Macky Sall ak ñi mu ànd ak bu fekkee ne ñoom dañoo bëggoon a gal gal gal Ousmane Sonko ba du nekk candidat nekkul candidat donte ne ki mu def candidat moo gagné. waa <laughs> mais <laughs> si c'est neuf <laughs> xam nga boo déggee président Diomaye ak euh, pacifisme bi bi mu am li mu wax dafa leer dama leen déglu démb ndeysaan dafa leer ne koo xam ne dix ans maa ngi jéem a fal président. moom en dix jours mu fal ma président loo ci xam te kooku <clears throat> baaxaayu Sonko la dañu wax dëgg dañu rëkkante loolu baaxee mooy man <laughs> Diomaye nee na ki nga xam ne toog na dix ans bëgg ko fal président moom en dix jours mu def ma président <laughs> may yàlla la yaa may dégg may yàlla bu ñëwee danga koy nangu sa ce qui pour que euh, le président Sonko man li ma fan ko ah li muy enlever son mois parce que bu doon keneen danaan aajiyee ah, du ma ko bàyyi kii de naa da ko ñu renvoyer élection yi ndax ma mën a présenter waat soo ma présenter damay gagné mu ne non le projet c'est pas Sonko le projet c'est pour le peuple ku ma joxeñ loolu la ah mu gagné am déet loolu fi réalité la réalité. donc donc du Yafoussou. Macky Sall du yàfusu Amadou Ba du yàfusu ñi mu ànd ak 54 virgule pour cent. waaw non c'est parce que temps yi encore une fois ñëpp dañu xamoon ne li ñuy def c'est du faux ñëpp tout le monde tout le monde tout le monde ma demal ay taalibe waxtaanal sax fii ay ñoo xam ne ay anonyme lañ dañ naan waaye Macky Sall fi ñu jub ñu daaneel ko parce que li ñuy def xale bi normalul te ko martyriser te oto ah jël yóbbu fi baare këram da ko martyrisé martyrisé boo xam ne ñëpp dañu mujj ànd ne kii il faut ñu fal ko. kon président Macky Sall moo defar Ousmane Sonko. ah mooy soo premier euh, directeur de campagne <laughs> loolu moo am na ci sama xam-xam mooy premier directeur de campagne parce que. Euh, sans le savoir xëy na da ko def te xamu ko wala pour yow moo ko def sciemment. defu ko sciemment xam naa ko eh, defu ko sciemment mais euh, président euh, gis nga kii li mu wax Diomaye barki démb. boo amee premier ministre daf la na la mën a wax dëgg ñu lay jege di la wax dëgg ñooñu da nga koy soxla waaye nag yaa rafet yaa fi dàq loo def baax na loo def baax na l'essentiel ne seen poste toy di seen poste fees man euh, wax naa ko ay journaliste tey bu ma sañoon boo doon opportuniste rek Macky Sall dafiy yàgg parce que je suis à ma avec man lu ma ko nëbb sama xarit la la grande dame sama xarit la amul lu may xewle ah ndeysaan sa duma waa tonton waaye wax naa kii dañ la yónnee bi billet màkk tonton sa xarit tabaski ñëw na donc dama ne woon à l'aise ak ñoom mais quand le peuple a besoin moi je préfère abandonner mes privilèges. sama intérêt est-ce que choix bi mu defoon tamit également posé woon na problème ci Amadou Ba pour yow mooy le meilleur choix wala mënoon na choisir keneen parce que parti mënutoon a dem wala coalition mënutoon dem te du am candidat quand même père. kenn. ku mu ci choisir <laughs> ñii duma leen. ku mu premier au premier tour. au premier tour non xam nga euh, la politique peuple bee ko yor di ko dugg ci peuple man j'ai la chance dama recevoir ay jeunes ñuy waxtaan am na ci benn fii mi ngi dëkkoon Sangalkam dafa newoon ci boulangerie aji bi man ne ko waaye je veux reprendre mon mouvement a kii mu ne waa ah, père yaa ngi reprendre mais ñun nous sommes de Sonkissi de à Sangalkam. ma dem tubaab jalaaw j'ai des mouvements partout ay fude mu ne ah per loolu yëpp nag ñoo la gën a bëgg waaye ñu sommes des sonkistes donc je savais que ne ak ku ñu mënoon teg ak ku mënoon teg ñii dañ leen di duma parce que boo xoolee ba xool euh, Sénégal am na ñaan doon xool Sénégal am am na ñaan exemple laa lay jox Senghor république la def 40 ans avec Abdou Diouf disons Abdou Diouf yokk démocratie bi Abdoulaye Wade di ñëw indi libéralisme vraiment defar loo ko mën tas wax ak lu mu liggéey Macky Sall ñëw fournir loolu am liggéey bu rafet bu mu def si le plan matériel mais il a léppé sur le plan immatériel soo kooku nag kenn doo ko loolu ball puy di ñoo ko def sax wax naa ko ba tàyyi mooy jaay doole gi kumba am ndey kumba amul ndey gi waaw lool la loolu la neex nga def caxat caxate alalu askan wi comme ni ko ñenn waxee. mais xoolal rek xoolal ñun falaaw yi nga xam naa man depuis 89 maa ngi fii en tant que doyen lu bon bon sax bokk naa ci biir du ko falu <laughs> waaye dañ caxate falaaw damay jékki-jékki rek ñu ne may nañ fila filaaw yi benn maire mais Ousa amoo ci man ne ah man de sama yoon ci man taalibi xam yooyu yëpp. ne am ñoo xam ñu ko jiital ñoo ko jiital man Macky di ko yàqal ci àdduna yëpp yëpp yëpp pour mooy usure du pouvoir et puis ñi ko mujjee wër après le le premier mandat soo ñooñu ay kàngam laa waxtaanal ñu nekk ñu nekk ci APR ñoo ma nettul loolu damay waxtaan ak ñoom ñu ma Macky li ko rey deuxième mandat ko gaañ ma ne man je sais ñu ci bari Macky bi mu déggee deuxième mandat bàyyi na leen parce que boobu ñeneen ñeneen a ko wëraat. l'ossature originale newatuñ fa looloo dal Macky alors euh, justement euh, père tey euh, ñi fi nekk mooy président Bassirou Diakhar Diomaye Faye ak ñi mu ànd ak def nañu lu ëpp téeméeri fan ci bopp réew bu Sénégal barki Dembo Ndiaye yaa ngi ko juñ sa kàddu def na waxtaan ak ñenn ci taskatu xabaar yi alors wax na lu bëree bëree bëree bëree bëri wax ji lan nga ci gën a téye ci ci ay kàddoom. du dugg sa foofu. mais damay dugg ci après hmm, discours am ak bi gars yi ñëwee c' est de bonne guerre c' est c' est de l' <laughs> ñu ne y' a pas de changement y' a aucun changement defa ne woon moo defoon ma ne c' est dommage que gars yi amuñu œil mais conférence de presse ba rek da lay changement am na boo xoolee ku daan tiim président Macky Sall wala Abdoulaye Wade ngeen di xëccoo ay parole que daal je je je prends je prends kii naa je prends amuñu fitam journaliste rek conférence parce que <laughs> Macky Sall bi amuñu fit ah je prends ah, donc amuñu fitam dañ naan nii rek comme des élèves du ma laaj du journaliste yëpp. journaliste yi nga wax yi doon seq mu waxtaan président euh, Diomaye. dama bëgg expliquer ni ñu newoon à l'aise ak Macky Sall. ak déedéet ak Diomaye. nga nga nga xool nañ daan toogee. comment dirais-je Macky Sall nañ daan toog ak Abdoulaye Wade wala nañ daan toog ak Abdou Diouf je me rappelle am na benn journaliste bu ne woon RTS Abdou Diouf da ko musa musa naawal ñëpp toog mu naawal ko du ma xam tuuram xam nañ ki may wax Abdoulaye Wade ku ko tiimoon muy wax ngay wax Macky Sall dernièrement da nga xool conférence de presse rek gars yi ne waaw kii ne euh, je je je je je loolu mooy la wan rek c'est un changement changement mooy humilité da nga bëgg wax ne ñee amuñu woon lu bëri dañoo xaw na arrogant. waaw waaw xam nga pouvoir baaxul da nga def yaay yàlla donc mujj gi journaliste dañ leen ragaloon ci loolu dama bëgg rek nga nga revisiter conférence bu de presse bu mujj bu boo président Macky ah monsieur président nii la gars yi defoon mais xoolal ñii ñii ngi toog ni nii ñii ngi toog di nii mais c'est beau xam nga loolu rek mooy leen ne y a un changement donc. li ma waxoon laay wax rek je pas inscrit sur la liste des comment dire des élèves de l'Occident mooy euh, Occident bu fête des mères ñëwee ñu ne fête de mères la bu xawma la ñëwee ñu ni lii la léegi cent premiers jours ay muy lu mu lan lañ cent premiers jours malgré ku nekk liggéey na ci mais jarul woon brouhaha bu bari bii. changement am na ci téeméeri fan yi. changement bu bari. joxe naa la changement rek ci ni ñu toogee le président. format euh, euh, entretien bi wuute naa yi fi doon am. loolu moo la wax ne changement am na encore changement am na bi nga xa seetaate RTS ma fekk fa ay ñoom bugaar fekk fa euh, pas mal de d'opposants ñuy kaas y a changement changement am na tabaski bi mu ñëwee changement am na bi ma gisee le le le le fulgurant ministre de l'agriculture loolu laa ko tuddee un gars son métier est très simple ma je l'aime docteur Mabouba waaw xaw ma ko mais très simple simple dëkk toog paysan tàppa sa loxo waxtaan yoon na lu waa nañ ni changement la anasaan ah euh, nga gis Abdourahmane Diouf ni muy taxawee ni mu maîtriser dossier am ah à sa ba tey mu ngi ne way je suis euh, Sonko c'est patron yooyu yëpp ay changement yu gars indi ak ni ñu fayee euh, comment dirais-je euh, kii cultivateurs yi semence bi ah bor yi mais yaa a des bu fekkee dañ nekk cent jours mais ils ont trop progressé man je suis content le seul hic que j'ai foofu mooy euh, Diomaye est très gentil mais qui veut la paix se prépare à la guerre vous pensez que Diomaye veut trop la paix. waaw ndeysaan séeréer la je connais <laughs> xam naa séeréer. jàmm ji bëgg moo ëpp. waaw te loolu mën na ko gaañ pour yow. waaw ah séeréer sont pacifistes sont pacifistes da ngeen muy waxee sax ndeysaan sans tabou sans titre sa yëpp mais bu ne du ma fayantoo man duma ma def ni du def ma ne ah ah fii nag dinaa am naa ikk foofu ak moom. ikk la ci du ma fayantoo. sax.